jërë ngeen jëf mbokk internet di nga xamante ni jamono ji yéen a toog di ñu seetaan biir Sans Limites TV ak Yes Actu TV di am toujours mbégte contentement di ànd ak yéen ci suñu programme mbokk yi mbégte bi nag day daal di kontaan continuer parce que gis ngeen ni depuis trois jours voire même cinq jours ñoo ngi ci ay activité yi nga xamante ni yaakaar naa képp koo xamante ni yaa ngi suivre ci sama plateforme di nga gis ne benn activité rek la amoon mi mariage yu Dieyna balde ak Brine di nga xamante ne wax dëgg neex yàlla sénégalais yëpp dañ cee kontaan ndax seen couple dafa nekkoon loo xamante ni sénégalais yëpp dañ ko yàggoon bàyyi xel à seen liggéey waaye tamit à travers euh, euh, euh, rumeur yi nga xamante ne jotoon nañ ko dégg ci ñoom ñaar sénégalais yi nag yàggoon yéene rumeur yooyu nekk réalité alhamdulilah bu mu nekkee réalité ñu def union le samedi passé 12 octobre 2024 léegi nag mbokk yi xam ngeen xew dafa metti ndax da ngay bëgg ci saasi di gërëm nit yi da ngay bëgg ci saasi lépp li nga bëggoon nga wax ko waaye nag après xew mooy dàkk ndax di nga am conscience tranquille di nga calme di nga féex mën a wax ak askanu Sénégal te à travers Sans Limites TV ñoom ñii dinañ mën a wax ak yéen ñu daal di def nag débriefing ci xew bi remerciement ci xew bi waaye tamit nag am nañ kumpa xam réel ak Dieyna Baldé kañ lañu nobante nobante bi kañ la juddu et loolu c'est très important aussi sénégalais yi daal ci bàyyi xel laata loolu mbokk yi dañ leen di daal di nuyu ñu daal di leen di jox kaddu euh, naa Baldé sama rak sama xarit ndaa naan kulli fadri jigéen du mën góor waaye nag nekk référence ci milieu bi lu ma gën a neex ci moom nag mooy fonk bu mu fonk Kolda ba tax na nag loolu wane nañ ko keroog gis nañu waa Kolda fes nañ dell ca bâche ba et loolu ça fait plaisir Bril présente plus ci milieu bi nekk un producteur un compositeur waaye tamit nekk ndaanaan mu soo ko dégg xuloon naa kenn mu soo ko dégg xeex naa kenn di référence boo ko xoolee sax day sëgg donc c'est très important ñu toog ak ñoom moo tax interview bi su may wax nànk lay wax et man dama yàgg rabe mais bii <laughs> situation boo ko ndax la donc ça fait plaisir maa ngi lay nuyu bu baax rek ji di am kontaan toog ak yow di la bàyyi nga nuyoog mbokk Sénégal yi lay seetaan jamono ci ci sa macha allah Fifta. ma grande sœur maa lay nuyu bu baax a baax. di aussi ñi nga àndal ñëpp macha allah di nuyu askanu Sénégal. ak àdduna lay wax. Mhm. donc di di kontaan trop trop tey di jàkkaarloog yow. Mhm. ak euh, waa àdduna. Euh, Masta Thion. merci. Euh, Bril. waaw ziar mon waaw di delloo ziar bu baax a baax. ak Sénégal yaa ngi lay waaw di la nuyu di nuyu tey ñi sa équipe bi nga àndal. di mhm. nuyu waa Sénégal yëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan. Mhm. di nuyu suñuy mbokk di nuyu suñuy xarit di nuyu suñuy am di jàmm suñuy fans képp koo xam te yaa jërë ngeen jëf euh, ma ñaan leen interview ngeen may ma ko. Mhm. jamono ci c'était pas du tout évident. ku gis seen bët yi xam ne da ngeen sonn. parce tey mbokk yaa ngi fi. Mhm. ba tey xarit yaa ngi fi ku nekk ñu seet si ku nekk ñu bëgg a wan coxeel ak yéene ci yéen. Mhm. Euh, waaye maa ngi leen koy ñaan rek may leen ma benn vingt cinq minutes rek ñu waxtaanee ko. <laughs> donc dama koy waxtaan ci ñett pàcc comme ni ma ko waxee. parce que balaa ñuy ñëw ci mariage am na lu ko jiitu. mooy euh, relation entre copain ak copine. donc damay damay njëkkee ci Bril. waaw bril tey Dieyna Baldé lekkoon mm-hmm. xale nekk ci milliard bëgg ko lool mm-hmm. mu nekk ci loo xamante ni euh, dafa génne quatre premier son mm-hmm. sénégalais yëpp xam ko ci depuis loolu lépp lu mu génne mu nekk it waaye mu mujjee ñëw ci say loxo mu gën a yokk ñu gën a gis mu évoluer macha allah sa première rencontre ak moom kan moo la booleeg moom ndax moom moo ñëw directement ci yow. Mm-hmm. ne la dama bëgg def son. Mm-hmm. wala nit moo ko jël comme ni ko ñu bëri di defee. Mm-hmm. jàpp loxo xale. ñëw indi ko ci kilifa. ne ko dénk naa la xale bi nan la demee seen première rencontre. waaw bon Dieyna yàlla suñu premier rencontre man je pense que c'était évident parce que tey musique sénégalaise euh, bon nekk naa ci koo xamante ne vraiment am na lu ma ciy représenté. parce que yàlla def na ni tey maa ngi liggéey artistes yu mag yu bëree bëri bëri te moom mu ngi woon ci yoon ne ku am talent moo tax man ne c'était évident que ñu tasante parce que bëri na ak ñu ma ñoo xam te liggéey ñoom waaye yàlla def na liggéey nañu liggéey bu euh, jaar yoon bu ñu paree ku nekk dem mais maa moom nasante di liggéey yàlla am na lu mu def suñu diggante loo xam ne c'était le destin comprendre nga ñu ànd mm-hmm. am na nag ay artistes yu ko indi ci man yoo xam te ne samay xarit lañ ñoo xam ñoo ko présenté ñëw indi ko si studio pour mu enregistrer après nag bu ñu bu ñu liggéey li ñuy liggéey pare yàlla def maak moom ñu jàppante. Mhm. xam nga loo xam ne yàlla moo xam ne naturel. est-ce que jàpp nga année buñ ko indi ci yow ban année la. est-ce que mille vingt et un. deux mille vingt et la. a defal. Euh, mooy son bi ëpp vue rek. <laughs> ci son yi son parce que on l'a fait naturellement mooy dina baax. Mhm. Euh, on l'a fait naturellement rapidement man moom xam nga ak samay xaritu yoo xam te ñoo nekkoon ci studio bi. Mhm. Euh, on a fait ça mu doon mu doon mu doon loo xam ne réussite bu mag la am. Mhm. vraiment et tey ci loolu la nga xamante en fait. Ah, après kon nag liggéey premier instant bu nga ko gisee mhm. ndax c'était typiquement professionnel wala bu nga ko gisee tak dee nga waaw non c'était c'était typiquement professionnel non mhm. bi mhm. xam nga mën na typiquement professionnel mais xelu góor bi ci ginnaaw dina na xale bi mool na wala dara est-ce que loolu jotoon na ci am loolu laa bëgg a xam non man nag dama sérieux quoi man moom su ma gisee nii des fois xaw ma xaw ma la nii xam nga même mooy loolu quoi damay bàyyi bëgg na la miin quoi pare voilà ah. man noonu laa mel quoi dama gis nit première fois rek après apprécier wala dara. Mm. man je comme ça. moo tax musuma ci sama bu ma juddoo tey nii sax comme gis nit ci mbedd nii tooñ wala dara musul nekk sama jikko man musuma def loolu quoi noonu laa mel. xam nga nit ku ne am na am na ay na ñu def loolu gis rek premier jour yi noonu xam premier jour ñu ne ñu liggéey naaj boobu professionnalisme laa daw kese seen duguma dara xool ma dara. Mm-hmm. mais après nag plus ñuy dem connaissance bi gën a dugg nag. gis ngay gërëtante nit bi loolu dañoo sa xel wala nga ne waa xale bi moo xale bi waa nobel bi dugg si <laughs> nobel bi dugg si nobel bi kañ la agsi waaw mais avec le temps parce que nit ki sooy gën a nekk ak moom xam nga yàlla bu leen def leen ngeen nekk chaque jour xam nga di connecté wu di liggéey projet yi dem ngeen gën a dem donc day am loo xam day nekk seen diggante day day nekk naturellement kañ la dugg si Bril nobel bi laa lay laaj pourtant moom laa lay wax nii kañ la ñëw donc avec mais ma période bi la santé na nag naa ko ma laaj la lan gis ba tax nga noboon ko période boobu waaw ah, moom laa moom laa lay wax nee naa la liggéey bi ñuy liggéey xam nga liggéey bi ñuy liggéey mm-hmm. euh, ñaari ñoo xam ne ñu bokk benn liggéey moom mu bëgg aar yàlla may ko ci talent man aussi ma nekk koo xam ne yàlla may na ma talent ci lépp lu ma defal nit ñi mu neex sénégalais yi mm-hmm. donc j'ai fait des milliers de hits tey li ma def ci ay it Sénégal boo doon compter vues boo dajalee ñoom ñëpp boo mën a cinq cent millions de ju dem mm-hmm. comprendre nga moom mu doon ko am talent ñu gisante régulièrement di liggéey naa la loolu ñu nekk ne di liggéey tout le temps di gisante chaque instant ñu ngi jox affaire yu bees donc loolu cofeel day dugg. la. wala <laughs> a sañse <laughs> euh, euh, mm. yow bu ma njëkk a laaj Bril laa lay laaj euh, ndax la présenté Bril wala yow naturellement daan nga toog comme say morom ah, parce que ku nekk yàgg nga rêvé. bi euh, grill defal la defal la son parce que heure bu defee son dina nekk ci idi par force loolu moom yàlla barkeel na ko ko mm. ndax yow yaa ko sentir naturellement wala nit moo la ne moo la suggéré bi bal la ci waaw euh, moom mosuñu xamante nag mais daan naa ko dégg tamit ci li muy def parce que nit la koo xamante ne defe naa Sénégal fii artiste yu mu liggéeyul bëriwul mm-hmm. ba ci série yi mu doon def ak yooyu noonu et tout Euh, dafa am ay artistes yu ma yu ma doon defal dafa am artiste bu ma doon defal featuring. Ah. après ci studio am la ko waroon defee. Mhm. ci noonu lañ xamante. Mhm. Mhm. may de. non ci noonu lañ xamante bi ma ñëwee après maag artiste bi son bi. pare après ma ñibbi. d'accord après ma sentir ni ko moom war na moom ñu waxtaan. Ah. après waxtaan nañ jour boobu noonu et tout. Ah. après man fekk xam nga man benn son laa amoon benn son laa jotoon génne bi may bi may xamanteeg moom mooy son son baabam. exact parce que boo maa ngi doon doog commencé sama carrière après son dina baax bi ñu def ko nag si la ñu sentir ni que moom mu sentir ni que war na mën a liggéey man man aussi ma sentir ko xam nga affaire ñu commencé di liggéey. d'accord au début nag dañ doon liggéey rek nag. au début da mhm. ah, ah, lan moo la gën a marqué est-ce que Drill bu ñëwee par exemple ne la sentir naa la bëgg naa ñu génn est-ce que automatiquement dañ ko nangul wala. xaw nga def fi jigéen wala lan moo ci jot am on veut savoir curiosité la. Uh-huh. xam nga couple bi sénégalais yi dañ ko bëgg. dañ ko waxtaanee biir nañ ci kaf nañ ci foofu nañ ci uh-huh. Uh-huh. lan moo ci amoon est-ce que yàggoon nga bëgg. génn producteur <laughs> yaa ngi ci milieu bi xamoon nga ni peut-être nii moo lay arrangé di génn koo xamante ni yéen a liggéey bi bu mu ñëwee envers yow est-ce que automatiquement da nga ko nangul wala jot nga ko dàq ne ko dama xaar man nekk guma ci wala. lan xool nga kii. léegi ban jigéen lay doxaan ngay naan xaaral. Ah? ah. xool nga ko laa wax. waaw. macha allah. te am na am na loo xam sax du calcul quoi c'est venu naturellement. tu vois c'est mu wax rek ah, maam moom lu lu yàlla mm. kii la. <laughs> yàlla moo def suñu diggante. parce que man ak moom. moom nii mosuñu <laughs> am na loo xam ne affaire du calcul quoi tu vois naturellement am na loo day ñëw naturellement day dem ba yéen ñaa yéen a koy tu mm. vois comprendre nga donc euh, day. à travers regard mën kenn ku nekk. mais di nga xam ko di nga xam di nga xam ne bon. sant na la ba boo nekk ba pour man pour nit ah boo nekk sax xel yépp mhm. mm, doo dem fenn ñu lay koŋ. doo dem mhm. fenn ñu lay rejeté. yow xamoon nga ni du la rejeté. non man su ma xam xoolee dara xam ne fii nii fi baax lu ma fa dugg. Ah, damay xool ba mu leer ma ni fii baax na damay xool ba mu leer ma ni man. ñii sentir nañ ma ma soog a dem su ma demee ma ma soog a dem xam naa ne sentir nañ ma ma a dem. yàlla wax nag. maanaam olof bi dañu dem ba sentirante en fait. Ah, voilà dem ba sentirante. maanaam natt nga peese. Mm. ba nga xam ne fii nooy na. voilà nga dugg. très bien ba man nit noonu la war a def waaw da nga dem ba nga xam ne sentir nañ la nga a dem. jéem li gën a baax li gën a bon mooy nga dem foo xam sentir wuñ la fa. dëgg la <laughs> voilà bu di. daa muus nag. Ah, ah, ah, hmm. lan moo la gën a neex ci Dieyna est-ce que automatiquement jikkoom la wala formam parce que elle est trop trop trop kiffée par les gens. Hmm. nit di bu ñu ko gisee macha allah taar bi. la ñuy njëkk a wax hmm. même bu ñu xamul jikko ji. est-ce que yow jikko ji moo la njëkk a attiré ci moom wala taar bi. non li ma gën a neex ci moom mooy attitude am quoi mooy c'est elle est une femme battante. dëgg dafa traversé affaire yu difficile yu bëri bëri bëri bëri bëri. tu vois malgré tout ça elle s'est relevée mm-hmm. gëm ne moom da ci war a génn mm-hmm. nekk une femme battante te affaire yu bëri yoo xamante ne tey euh, du woon si coobareem quoi comprendre nga donc loolu yàlla moo lay tag naxaar wala dara yàlla moo lay tag nattu mm-hmm. moom mu xam ne nattu yàlla la mu jug nekk une femme battante di xeex xam nga nangul benn morom dépassé ko chaque jour que jëfee liggéey la xam tu man chaque jour def affaire yu bëri ñuy liggéey moom moo koy initier comprendre du samay du lu may initié moom mooy initié ne lii laa bëgg a def lii laa bëgg def nga tout temps mu ngi nekk xam nga di xeex di fight di am ay esprit di xam xam nga di intelligente quoi di xalaat tout le temps affaire yu ñu war a def affaire a avancer loolu loolu moo a neex si avant tout quoi balaa ay xam nga ay beauté sax loolu am na fi tu vois wax dëgg fa moom moo daax ci Sénégal comprendre nga si moo ci Sénégal kay mais ah, non si moo dàq Sénégal. loolu loolu ko soxoroon. xam nga na waxu tey la wala waxu pour toujours. non va va regarder oh. <laughs> loolu sa parenthèse bu ndaw la pour dire que ni. Ah mis à part c'est une femme brave. Mm-hmm. comprendre nga et battante. koo xamante ne wax dëgg fa yàlla musul faxastalu ne su ma faxastalu laay toog saa bu faxastalu day jug. dëgg day jugaat ko mm-hmm. xam nga di fighting xam nga moom boobu su su su ma demee sax bay bëgg a bàyyi sax damay xool si moom. xam ne kii jàmbaar gi mu doon ni en tant que jigéen moom en tant que ku nekk war na jàng ci moom quoi nit ku mérité am bonheur la ci àddunaam quoi nit ku mérité am dara comme ban nga loolu moo tax quoi moo gën a neex si moom ça ça fait plaisir mais Bril dafa mel ni apparemment a jóge dafa mel ni ma gisee nii nii man Bril ko noppi laa ko mais nag te Bril dafa jóge non sax de ah interview te interview waxtaan la xam nga mënoo woon may interview. léegi Bril géwél la de mais dafa mel ni. pourtant géwél la boo nekkee marié. ah oui pourtant géwél laa si. sérieusement eh, sama yaay géwél 100 pour 100 la. non j'ai comme l'impression comme premier premier fanaan en tant que marié. boo yeewoo dafa am lu muy changé ci yow. ah non non j'ai toujours été comme ça. ah oui voilà d'accord dinañ ñëw ci yoon. Dieyna <laughs> euh, Bril def témoignage yu day wax ci yow. Hmm. te loolu Sénégal yëpp bàyyi nañ ko xel mu ngi wax que ni lu ko gën a mooy da am coom moom sax bu naree tayal bu xoolee ci yow automatiquement day jug. nekk ci liggéey bi et lu bëri lu liggéey yaa koy initié ba pare mu taxé la la plus belle femme du monde donc looy wax ci loolu. waaw di ko sant di ko gërëm rek parce xam nga tey mënoon na bañ a wax. mais li mu gis la wax ak li mu sentir ci xolam. moom nag man népp nu ma mel defe naa moom moo ma raw parce que am na lu bëri lu mu def ci man. wax dëgg fa na yàlla il a été di ma soutenir di ma jàppale téye sama doom surtout loolu sama doom moom lay wax papa mm-hmm. jéenaa ma dama la sama doom man kii lay wax papa lu nit di def ci doom moom def na ko ci xale bi bu feebaree mooy jël yóbbu hôpital moo koy mooy fay école am mm. moo koy solal yére maanaam lu xale yi baax yi di am xale bi lépp lu mu am kii koy def mhm. te loolu rek defe naa loolu cela veut tout dire mhm. comprendre kon moom alla deseluma dara voilà loolu sama famille xam nañ ko ñi ma jege xam nañ ko xale bi sax bu toogoon fii léegi da ngay gis ni muy comporté wu moom mhm. comprendre nga xam ne moom nit ku baax la dafa gën baaxul dafa gën comprendre nga maanaam li mu wax ci man yëpp daal mu ngi ci moom en quelque sorte euh, te nit la koo xamante ne dara boo alalam boole ko ak nit. te xool bu rafet la am. ba ci famille boo duggoon tey laaj leen même témoignage yi ñuy def. Mhm. te ko sonn ci yaayam la ba yaayam décédé donc daf ko ñaanal. nit gënu ko. dëgg la mhm. euh, ban période Bril nga décidé nag nga ne da ngay officialiser parce que d'autant plus que xam nañ def ngeen quatre mhm. ñu dégg ban instant nag nga toog focus ne lii nag foog ma foog ma officialiser wu ak lu la poussé à ce que nga officialiser carrément. mais yàlla rek. am nga yàlla ngir yàlla rek am nga tey des fois da bëgg dara fekk du du du jot quoi moo tax yombul. mbar nga man ci deux ans yi passé dama ci traversé période yu difficile. man sama yaay feebar nekk hôpital pendant temps bu yàgg jóge fa xam nga. Mhm. amaat beneen génn ñu dafa am insuffisance rénale dafa war def dialyse tout le temps. Mhm. donc bi métti pendant presque deux ans mu dund ko. wan nga nekk si loolu kese. pare jóge fa mère bi décédé. mais bi après loolu nag. mais mère bi xamoon jotoon na am affinité ak Dieyna. waaw mère bi xam na Dieyna bu baax a baax macha allah. d'accord xaritam la woon xarit la woon doon wax moom. Mm-hmm. Mm-hmm. rafet. am naa te dañ doon déggante tamit. Mm-hmm. bi bon après ça la def c'est parce que dafa jot rek moo tax mu yomb xam nga tey yàlla bu la jaarale ay nattu xam nga nga dund ay période difficile jaar ci xam nga ay am ay at yu difficile difficile difficile des fois peut-être di bëgg benn affaire sax mais sa xel du si nekk parce que yaa ngi nekk ci ay moments yu metti xam mm-hmm. nga ba génne ci loolu xam ka après je me jot na. Mm-hmm. jot na parce que fu mu toll nii comme maire bu jóge na yàgg na bëgg loolu. te yàgg na ma ko wax. Mm. xam nga tout dafa daan tooñ sax tout le temps ti fu ma gis rek loolu may wax. ba jour bi may tukki sax. Euh, dama ñu dem mardi maire bi génn àdduna mercredi je pense. Ah. mais même même jour bi rek moom may wax lool naan ma na nga fexe ba fi ngay dem boo fo jugee na nga tax jabar. baan nga donc wax boobu nag toog tout le temps depuis bu mu génnee àdduna ba tey. Mm-hmm. dafay. Ah, jooy bàyyi Mhm. c'est c'est très normal. jaaj ah, moom mënul wax yaayam jooyul ah, mënut a nekk. parce que dafa xolu yaayam la nag de. waaw ah. jege woon yaayam donc kii bu ko bu ñaanu yaayam fekki c'est normal du jooy dara. parce que yaayam daf ko gërëm. Mhm. jàmbaar la. dëgg la ko mu naan. nga fete mhm. bi. nga féete ko yaay aussi également. waaw mais loolu moo ma war. parce que nit boo nekkee euh, nit. surtout jigéen sax boo nekkee góor jigéen mooy yaay mooy lépp. donc da nga ko war a féetee ci côté bu nekk. comprendre nga te man xamoon naa yaayam. Mhm. miinante woon nañ te gis naa moom ni doon dundee ak yaayam. Mhm. comprendre nga. Mhm. donc mënu ma ne dinaa def li yaayam doon def parce que mënu ma ko moo ko jur ah mais fépp fu ko yaayam féetee woon man dinaa ko jéem a féetee c'est important moom lay wax dalay takk jàppee woon ko dëgg wala kaf nga ko jàppee woon au début daan nañ ci waxtaan tout le temps tout le mais moom bi mu paree ba décidé bi mu koy wax parents mi ñoom biñ may woo moom waxuma dara ah parents mi ñoo la woo damaa jékki saay rek papa ma woo ma papaam papaam ci boppam. Mhm. waaw mu woo la ne lan. ne ma ci loo nekk ma ne ko ça va nuyante ma woote yi ma mos a bii moo ma ci dàkka ne ko ah mooy loolu mooy lan mu ne ma sa papa mi ngi foofu ma ne ko waaw ma pare nañ de dañoo bëgg a ñaan si bu ñu ñaan si fan la ñuy ñëw. jëy naa doo dundee loolu. ma choc parce que xaw ma guddi goog nelaw ma daal nañ waxtaan maa moom ci loolu mais keroog li ma yëg mosuma ko yëg sama àdduna. guddi gi nelaw ma may xoole bu bëccëg. Ah, ba ba foofu. di imaginer lu ne man yëg boobu loolu noonu tant que yow loolu accès woo ci niveau boobu loolu nit mënu la ko expliquer comprendre nga. ma kontaan nag. Mm-hmm. après ma woo <laughs> loo ko ma ne la moo tax waxoon ma woon que nii mënuma ah du jot daa jot rek. xam waxam du bëri nag. waaw moom waxam bëriwul. nga li muy jëf moo gën a kii quoi mooy loolu. effectivement temps bi gudd na wala temps bu gàtt rek programme wu. non vite fait boobu maa ngi sax Kolda. sama sœur lañ doon muur waa mooy bi ma demee bi passé. dama dem muur muur bi. defe naa trois jours lañ ci teg papa mu woote. Mm-hmm. sama sœur ma kon yow maa la umu man kay bu ma demoon <laughs> instant yow dem nga bu yàgg ma ko gis nga. donc après noonu la ñu waxtaanee man bi ma ñibbisee nag. si mm-hmm. la ñoom yónnee yónnee Kolda lañ yónnee. Mm-hmm. ñu dem foofu waxtaan si après ñëw Dakar. fii sama kër euh, ki ñu ma bàyyeele mooy sama jëkkëru mag. donc ñëw foofu noonu waxtaan si automatiquement ñu jàpp date. affaire yi ci jur bu gàtt la. kon nag ñu ñëw automatiquement ci mariage bi. Mhm. Euh, voilà temps bi moom itam c' parce que sénégalais yi dañuy dañ ko ci couple artiste donc Bril aussi di jégalu bu baax. sa yaay fooyee mu tëdd yàlla na ko gën a fii voilà mère moom sama xarit la woon. man maa gënoon jege yëpp. sama xarit la woon. Ah, donc man moo nekkoon sama mieux ami. Mhm. dama sama yi sax yaay mooy sama manager. dëgg la moo tax samay xam nga avant. seetloo mhm. rap laa doon gën def ko way mais dama naan wax gars yi man soo gisee may rab sama rab tout temps di nekk rab boo xamante ne doo ci dégg ay saaga wala ay wax yu ëpp moom tax man la parce que sama yaay dafa may déglu. la dafa nekkoon sama xarit. Mm. dafa nekkoon sama sama sama xarit ba bi mu nekk hôpital sax maa doon nekkamu ci néeg bi. mu mm-hmm. tëddee ci kaw ma tëddee ci suuf pendant trente jours. saa yi bu lépp maa doon def lépp. maa doon def lép donc moo tax su ma waxee ci moom. dama ko mën a miis di ko yóbbu hôpital di ko. jëlee chaque jour. ah góor bu am yërmande moom la moo tax góor baax na jigéen baax na parlons du mariage maintenant euh, pour la première fois ma gis mariage artiste boo xamante ni sénégalais Afrique le monde entier yéene ko ñi nga xamante ni mooy couple bi je sais pas ndax ci seen jëf la wala ci seen lan la c'est la première fois ma gis ay vidéo ñu amul ay commentaires yu négatif ñun ay journalistes lañ mm. tout le temps ñoo ngi ci Snap tout le temps ñoo ngi YouTube tout le temps ma duggul ci benn plateforme boo xamante ni gis naa ci lu négatif. wala gis naa ci sabotage ndax yéen a bu nga xamante ni Sénégal yéen a leen ko. alors mariage bi am organisation bi jaar yoon parce que ki mariage wax organisation bâche bi rafet macha allah ngeen investir ci. lekk amul kenn ku fa jógee génn na nekkul wala naanul et macha allah tegoo leen ay cof cofoo leen daar dinaar mhm. yu mat sëkk ngeen joxe. Mhm. crudité yu mat sëkk ngeen teg entrée yu am solo ngeen teg ay jus fruits lépp loo xamante ni rek doomu aadama war na ko lekk teg ngeen ko. ba mhm. pare pour la première fois aussi également ñu gis marié di jàll. sans mu am ay affaires yu débordé. ñu gis tamit artistes yi Sénégal yëpp ñëw ñu gis influenceurs yi maanaam toute catégorie. de millions yi nga xamante ni domaine nit mu ngi ciy liggéey gis naa ko fa keroog ca bâche ba man je me suis dit que ni est-ce que fii tey jotul ñu xool liñ fi créé parce que bu dee influenceur moo ngi fa bu dee artiste moo ngi fa bu dee journaliste moo ngi fa oh, bu dee tiktoker moo ngi fa comédien moo ngi fa alors regroupé ngeen li nga xamante ni mooy art euh, bu ngeen ñëwee gis loolu automatiquement lan la leen def déjà ndax mën nañ louer ay ay chaise mais ay nit mënuñ ko louer donc bu ngeen gisee loolu automatiquement lan la leen def seen mbokk yi ñëpp et loolu c'est très important parce que avant artistes yi mbokk la mm. parce que mm. mbokk moom ngay bokkal mm. moom ngay bokkal koñ moom ngay bokkal ndey ak baay mbokk yi ñoo fa jiitu influenceurs yi soog a ñëw artistes yi soog a ñëw donc lan ngeen wax ci loolu la fekk ñëpp ñëw wuy si leen waa euh, déjà damay sant euh, àdduna parce que du ma yemale Sénégal rek ndax fu ne jotee naa fa jotee nañ fa appel jotee nañ fa message depuis affaire yi mm-hmm. donc euh, contentement laa ci am parce que bi ko nit ñi yëgee avant takk bi di am ay cinq jours yooyu si la nit ñi commencé di nekk ci internet bi duñu dugal de partout de partout de partout et vraiment ñun dañoo nekk artistes yoo xam ne surtout moom mu ngi liggéey ak ñëpp donc ñoom suñu ñëwee teew si bis bi loolu lu yoon la parce que comportement bi mu am envers ñoom la dem que moi donc euh, nit ñi kontaan ci mariage bi yóbbu ko fi nga xamante ne sax ñun foogee wuñu woon lii dina am. yéen journaliste yi yow mi fi fitaa sax laay waxal mention spéciale à toi. nga ñëw depuis avant affaire bi di coordonner ak journaliste yi. teg affaire yi jaar yoon. maa ngi lay sant di la gërëm di sant presse bi aussi. sécurité bi ñëw aussi macha allah ñu def xew bi seen xew. sans problème photographie ñëw. bëriwul ñi ma ci woo ñi si des yëpp ku ci dégg nouvelle bi yaa ma yëg yaa sa téléphone woo ma sista kontaan naa dama ñëw taxaw la ñu bàyyi seen yitteeb ñëw Griff Diouf tamit bàyyi lépp lu muy def ñëw taw influenceurs yi am nañu ci bëri ñoo xam ne ñun woowuñu leen ñoom ñëw parce que dañoo kontaan ñun lim euh, invité yi ñu li euh, defoon pour ñu ñëw dafa double affaire bi di dem tout à traiteur bi aussi ram a nekk nit ku baax mm-hmm. lu affaire yi tollu rek mu koy gën a yokkee noonu dëgg la comprendre nga mhm. donc borom baas bi aussi mooy Jacky mhm. mu nekk nit ku baax defe affaire yi ba mu nice mhm. nit ñi si ñu vraiment mu nice dañoo kontaan. da ngeen kontaan waaye même ñu ñëwul sax man am na ñoo xam ne ñëwuñu li mu wax wax na lépp parce ko jàppee dafa gaaw si wax na lépp par rapport ñu am na ñu ñëwul gis nga tey ñu ñëwul sax da ngay si ñoom parce que boo duggee si internet bi ba gis ñu toog ci bi ñu nekk ci Snap bi. ñu nekk ci mm. Facebook bi Instagram. Mm. commentaire yu positif yi ñuy def rek boo bëggee ba gisoo rek sa que da ngay kontaan Sénégalais da lay gën a fàttali que ni mm-hmm. a fàttali que ni Sénégalais soxorul Sénégal ay ay ay da lay ñun ñu gën a sax euh, xam nga. daf ñu gën a gën a fier waaw daf ñu dëkk mm. fier ci nga xam te ne tey ñoom xam ne ñoo ñuy déglu fier ci nga xam te ne ñoom ñoo nekk ci réew mi ñëpp quoi pare tamit day tax ñu gën a am jom suñu bopp. Mhm. day tax ñu gën a xam ne am na ñu ñu bëgg. Mhm. day tax tey lépp lu ñu naroon def loo xam te ne def fay daf ci kanam nit ñi ñu gën a góorgóorlu xam ne kat ñu ñi am na ñoo xam ne ñoom ñuy bàyyi xel am na ay nit yu baax yoo xam ne ñoo wax lu baax si ñun. kon dañu war a góorgóorlu. Mhm. dañu war a dañu war a fexe ñooñu noonu gën a fier si ñun. voilà loolu moo gën a gën a gën a touché si xew bi maanaam. le fait que ñëpp àndandoo. xam nga ñëpp àndandoo wax ci lu rafet. ñëpp àndandoo kontaan ci. à l'unanimité vraiment ñëpp ci kontaan ñëpp ci li jëy na yo en tant que jigéen nga def ay sañse yu rafet. su ñëpp apprécier xam nga Sénégal dañoo gaaw teg photo teg di commenter lii dafa modé wala modé wul. Ah. mais macha allah ñu la ñawal ñëpp. ñëpp apprécier ba pare nekk koo fa di compter ay di sañse ah. genre tu as été vraiment. simple et loolu tamit marqué sénégalais yi parce que concours boobu noonu nekkoo fa vingt cinq sa la sol lii naam tailleur yëpp parce que ñëpp amoon yéene man personnellement ay tailleur yu bëri contacté woon nañ ma mais xamoon naa doo ko mën a sol uh-huh. et que am na ci yu bëri yoo xam ne solo ko parce que uh-huh. temps bi mayewu ko woon moom moo doon muur uh-huh. alors sañse bi ak ak maquillage bu rafet beeg yooyu noonu yëpp donc on en parle aussi également déjà moom monsieur dafa bëgg lu may lu rafet. Ah. comprendre nga. bañ na ko ba su may dem di ma maquiller wala dara ñooy ànd mu xool ba xam li baax na wala baaxul tu comprends. donc bi ñu jàppee date bi balaa ñoo bi ñu jàppee date bi. man dama commencé di wu di xool affaire nan la mën a def chaque jour ma da ngaa bëgg xew yow da nga mën a ko ma toogal la xam nga li ma wax. ma dugg ñu njëkk a ñëw mooy Amosa maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Ah. ñawal na ma ak yéene ak xol. tenue euh, bril aussi mooy veste bi moom moo ko ñaw. Ah comprendre nga waaye ah moo ko ñaw moom moo ko ñaw. Ah mu nekk waaye nit ku baax nit ku baax mu ma ma jug dem def ay démarches mu ñawal ma jim création aussi moo ko ñawal yére bu blanc bi mu soloon ci heure takk bi. Mhm. comprendre nga Anwar mu make ma. Mhm. ku tudd Umu Xayri aussi moo ma defaloon premier coiffure bi deuxième bi. Mhm. Euh, beauty family moo ma ko defaral perruque nag bàyyi Modou HLM moo ma ko jox mhm. donc dama teel a jug dem def yooyu noonu yëpp doon toog parce que dama xam ne nit ñi dañ may wuyu te dañoo kontaan te bu ñu wuyusee dama war a sañse bu mu bari pour ma mën a am jotu nit ñi ñu mën a fotow mën a waxtaan mhm. artistes yi fa nekkoon ak influenceurs yi ak ñëpp daal. man mhm. cee gis seen bopp. et ça ñëpp gis nañ seen bopp. Eh. mais jéem dafa am lu bi. Euh, nga jugee salon ba ñëw da nga dem nuyu ji sa sa yaay lan la doon làkk ci pulaar sama yaay déjà <laughs> maa bu baax a baax euh, sama yaay dafa da sama yaay moo lépp lu ne ci man moo ko def ci man. Mm-hmm. comprendre nga comme li ma waxoon sama benn interview bi rek nee naa moom su ma koy xool muy wax sax lu yàgg damay jooy parce que fi ma féetee la sama yaay bëggul dara lu ma metti lu ma juddoo ba tey lu ma nekk mu ngi ci lu ma bëgg mu ngi ba ci sama xew bi par exemple avant mu euh, bi ñu nekk ci préparatif yi mhm. lépp lu ci war par exemple lépp moo ko def mu jóge Kolda ñëw ba fii comprendre nga mhm. bi ma dugg see takk dafa xalaat lu bari li nga xamante ne peut-être jàll naa ko te moom chaque jour bu jullee dafa doon ñaanal yàlla yàlla nga am jëkkër nga dem sëy loolu rek moo ma dese bu dundee ba muur la nga sëy man bu ma deewee sax baax na ma dugg mu expliqué waat ma loolu ba pare am lu ma wax loo xam ne dama ko wax ci internet xam nga moo ma touché daal. Mhm. yaakaaruma woon ni dinaa jooy. parce que man mën naa maîtriser. waaw mën nga maîtriser. du gaaw a jooy. Mhm. mais daf ma jooy lool. ci kàddu yooyu dafa am wax jub la wax ju la mhm. mu ne la lan. non <laughs> rapport ak sëy bi la. waaw mu ne la nga toog sëy. mu neex mu nakari. nga la wax. waaw wax na ma loolu. wax na ma loolu parce que moom sëykat la. dëgg la donc man bu ma sëyee bu ma sëyee damaa war a sëy bu sëyee la ma war a sëy. kon birim daal lu mu la munti def nangu di ko di nga ko fa lu baax rek la may def. dëgg la <laughs> ça c'est très important alors ñi nga xamante ne aussi également ñëw nañ fa. Mhm. Euh, euh, mu marqué leen mooy ci millier bu nga nekk di évoluer mi aar dañ fa cërale ay nit. Mhm. ñii nga def leen magale. ñeneen ñi aussi également nga invité ñu ñëw fa defal la ay hôtesse. Mhm. ba ci team effort dama gis ne ñëpp dañoo regroupe bon. am na ñu ñëwut mais ñu ñëw moo ëpp ñu ñëwut donc euh, ñu ñëw def ay hôtesse mu neex na parce que maa toog jàkkaarloog yow nga wax loolu c'est la première fois artiste am événement ñu def hôtesse ñëw nga jël cër jox Mia Guissé magale ko oh, oh. jël cër jox Sabel Dieng magale ko oh. yéen ñëpp tafa woon leen euh, cër yooyu lu waral nga jox leen ko ñoom d'autant plus que am na tamit ñeneen ñoo jox cër magale ci sa famille dañ ma ko ji rek parce que dëgg la Tafa moo ñu boole mais yàlla dafa dogal ni que ñun ay jigéen ñu am yu mature lañ. Mhm. dañoo comprendre ante laajal kii mhm. ñun dañuy invité wante ci loo xam ne du sax fës. dañuy ànd. dañuy li ñuy waxtaan mu genre dañu am complicité. Mhm. ba pare déggoo maanaam magale bi ma jël cër bi ma jël jox ko Mia ak Sabel maanaam man avant ma ko xalaat sax avant avant ma koo wax xalaat naa ko avant ma ko wax ñoom ñoo ko njëkk a xalaat. mooy ku ci mel ni Dior mbay mu nekk nit koo xamante ne moom mooy dajale bu waree wax kii dara moom mooy woo kii ne ko defeel nii defeel nii waxeel nii ñu nekk ay nit ñoo xam ne ñun seeni rak dañuy teg si yoon di xool lu baax di ñu ko digal comprendre nga yaa mm-hmm. gisee nag ma koy sant di ko gërëm ak Sabel parce que loolu ñu ma defal noonu ci jour xew bi xaaruma ko woon ci ñoom parce que dama leen jox cër bi ak xool mais du pour leneen comprendre nga mm-hmm. parce que nit ki nu mu la def rek Euh, noo ko def rek nam la defa tax. Mhm. ndax Mia dafa nekk nii koo xam ne moom dafa ma bëgg. Sénégal yëpp xam nañ loolu. daf ma bëgg. Mhm. bu ma gisee dafay kontaan. comprendre nga donc man aussi mënuma aw ma lu ma ko faye mhm. loolu rek laa ko mën a faye voilà c'est important waa Kolda. mënuñu ba pare ci ñëw. waa Kolda ma gis bëri woon trop waa Kolda. Euh, am na sax comme ne ma bis bu ma jëloon. buy jóge Kolda doon ñëw Dakar ku ma laaj daf ma naan ci xewu Dieyna ba lay dem et loolu préciser woon naa ko euh, euh, lan moo waral loolu. waaw parce que ma gis tout le temps yow. yaa ngi sagoo Kolda. Uh-huh. te pourtant des femmes ñoo xam ne bu ñu jugee ci dëkk nekk célébrité. Uh-huh. dañuy xeeb seen dëkk. Uh-huh. mais tout le temps yaa ngi xool noo ko valoriser. d'autant plus chaque année yaa ngi fay def dara pour juste wan leen rek ne ni man fii laa am. Euh, ñoom ñëpp ñëw nag ñu gis nañ ci ñoom Lia sa mbokk la. Euh, du sax sa sa du sax ay ay dëkk Kolda ak parce que xaritu Ali la en plus ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp gis naa leen fa waa Kolda leen di wax. Oh, waa Kolda ñooñu. ñooy sama man fa laa juddoo. Mhm. comprendre nga tey ni ma mel nii. mais mënoon fa juddoo xeeb la ci xam dara dëgg la. am na ñoo xam ne duñ toog sax ba wax fuñ jugee. am na voilà donc voilà. mais man dama juddoo ci famille bu modeste. Mhm. comprendre nga am nañu ma yaree ma am ay valeur mhm. man dama simple man dama bëgg lu simple. yàlla def na sax nag kii ma nekkal moom noonu la mel. mais dañoo naturel boo ñu fekkee ñu toog danga naan ñii duñu ay donc sama yaay tamit nañ ko kol daa toog foofu noonu. waa Kolda apporter ma lu bari di ma gunge ci lu bari. Mm-hmm. donc ñoom man mënu ma dem sans ñoom mënu ma leen bàyyi ginnaaw. Mm-hmm. di leen sant di leen gërëm ndax gis naa taxaw ba ñu ma taxaw. mais aussi ñu gis tamit seen say say amis d'enfance yëpp ñëw. Mm-hmm. Euh, ku nekk tamit di wane cofeelam ci ñoom ci yow. ñu ci bëri sax bëgguñu yoon feeñ ci caméra sincèrement euh, ku ci mel ne Rama moom def na sax ba pare na ma fi fi génn ma ngir yàlla. et pourtant lu mu def ci xel bi jël otoom. def fu ne mu dem fa ba ci bi ñu yóbbu añ bi bokk na ci délégation bu dem def lépp daal rek rek pour nga kontaan euh, ami d'enfance yi nga xamante ni ñëwoon nañu lan ngay wax ci ñoom si Fifita merci beaucoup déjà ci <laughs> insisté bi nga insisté foofu. Mhm. donc man samay ami ami d'enfance ak samay xarit yi nga xam ne dañ maa jege. ni li ñu def ci xew bi man lebaluma leen sax loolu. donc di leen sant di leen gërëm. Mhm. ku ci mel ni Rama moom nga tudd. Karima dara tamit noonu la ci sonnee. Mhm. Asia Asset tuuti. xam nga Mia Black yi surtout Mia <laughs> Mia mi nga xam ne dafa bàyyi jëkkëram huit heures la génn këram bàyyi jëkkëram foofu mu xëj ba bëgg a dee mu ñëw ci man nekk man bu guddi <laughs> donc di ko sant di ko gërëm bébé si aussi Kumba mm-hmm. ak ñeneen ñi nga xamante ne peut-être suma ma limee dinaa juum mm-hmm. Euh, ku ci mel ni Sophia Diamond mi nga xamante ne sama bride to be bi moom moo ko organisé defal ma ko surprise. moom aussi si magale yi la bokkoon. Mm-hmm. donc mu nekk lu ma marqué ndax nit nit gënu ko nit ku baax la. Mm-hmm. di sant di gërëm tamit euh, Griff Diouf ndax Griff aussi. liggéey bi mu ci def loolu dafa rëy. ci sama coté ak ci côté Brindwood. maanaam depuis bribe bi la commencé ñëw chaque jour mu taar otoom ñëw. ma war a dem jour xew bi tamit mu teel a ñëw azalaay fekk ma fa organisation bi lépp ci loxoom la jaar te joxuma ko un franc lépp lu ñu coordonné wala di ko joxe moom moo xaalisam donc mu nekk nit ku gën nit ku baax Griff yàlla na yàlla fay sa xol di remercier photographe yi nga xamante ne bàyyi nañ seen yitte yëpp ku ci mel vision ku ci mel ne Talla Medza ak yeneen ñi nga xamante ne xamuma leen ak ak ñi doon vidéo aussi bari nañ donc ba ci décorateur bi nga xamante ne Jackie la tudd moo defar bâche bi nga xamante ne maanaam man dañ maa ko am ñun dañ ñoo ko am macha eh, allah sa belle famille balaa ngay egg belle famille moo da parle la wax ci ay amis d'enfance mhm. man ma xarum bi yëpp li mu si gën a neex mhm. ma fu ma gis nga doon àndal bi nga nekkee xale ñi nga xamante ne bi ngay nekk école yaa ngi ñoom yéen doon ànd bi ngeen def CM2 sixième ba université yéen a mhm. man bu ma tourné ñoom laa doon gis mhm. muy samay xarit yoo xamante ne samay xarit yu yàgg lañ du ñu ay ay nit yoo xam ne dama siiw rek nga xamante ñoom mhm. xam nga ñoom Talla Fall ñoom Ismaïla Kane xam nga ñoom Mbaye Ndiaye Xaarim Thiaw samay xarit yi nga xam ne laa doon àndal su lim sax juum dañu bëri ñun ñëpp maa ngi leen sant gis naa seen taxawaay bu baax a baax ak ak aussi samay xaritu artiste ñoom ñëpp parce que léegi ñoom ñooy su may xarit artiste waaw waaw dañoo ñëw ñoom ñëpp. Mhm. ba pare def prestation. ku ci mel ni Jiba ñëpp xam nañ ñoom maak moom. yàgg nañ ay at a ngi ñoo ngi liggéey mun naa ne carrière am sax musique yëpp maa ko def presque. xam nga tourné gis mu ñëw jël ar jël xew bi def ko xewam. Mhm. def fa playback bu neex. Mhm. bëggal ñi fa nekk ñëpp. ku ci mel ni Bass xam nga wan lyrical. OMG. ONG Pagaay Mbay Matadi xam nga bëri nañaa ah ko lim jum dama kontaan si ñoom vraiment ba xaw ma sax lu may wax maa ngi yàlla mi nga xam te ne moo mën a fay yàlla na ma la yàlla na ma yàlla nañ yàlla fay bu baax bu <laughs> di di di wax eh, di remercier waale waa seen petit gàlle waaw parce que def nañ seen délégation kenn desul wax dëgg neex yàlla ñi ci jotul ñëw tamit ñoom. woo nañ ma ñu expliqué wante. donc ñoom tamit mention spéciale artistes nekkoon influenceurs yi ñëpp ñëpp ñëpp daal. ñoo ngi ñëpp gis nañ ñëpp tamit ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wax dëgg fa neex yàlla ku lim juum. kenn desul. ñëpp ñëw nañ. kontaan nañ. dugal nañ photo yi. yi. ak sunu mbokk yi tamit. ak sunu mbokk yi. xam nga man man sama mbokk yi xam man sama mbokk yi macha allah dañoo bëri. Mm-hmm. sama famille kër papa kër yaay xam nga ñoom ñëpp xam nga fu ne lañ jóge ci Sénégal ñëw nga mhm. aw ma seen fay xew mi seen xew bopp lañ ko def sonn ci vraiment donc xew mi rek ciy jógee soo nga xam ne nag yow say mbokk fonk nañ la dëgg parce que dangaa woote ñëpp teew mhm. ñi fi teew ñëpp ñoo ngi leen gërëm di leen sant di profité ci vidéo bi. di mhm. leen remercier dix mille fois. nañ trop. di profité walla ci vidéo bi ndax lépp ci la. di remercier aussi man sama famille ñëpp. Mhm. parce que sonn nañ ci trop. commencé ko si sama papa sama yaay kiñ ma bàyyi la Seydou Tunkara. Mhm. di remercier sama grande sœur a Balde Cheikh Omar Amadou mi fi nekkul. mention spécial à Ali. Ali Balde. Oh, oh, oh. Ali Lia. Jonas. Mamadou. vraiment. tey moom dinañ def ni mu bëri. parce que tey moom li mu wax nii. Mhm. damay fàttali ni man suñu waa kër. Mhm. su ba kii dem ba tey fi la fanaan. Mhm. aywaay xam nga sama raq yi nga xam ne. macha xam nga ndey leena. Oumy Ngom xam nga. Lay Ndiaye Aziz Ngom. Fatou Touré Fatou Touré xam nga sama waa kër yaay papa yéen yi xam nga. Petit Jaaji waa kër Kodou Petit Jaaji. dañ fi dañ sonn ci xew mi vraiment maa ngi leen di gërëm. di leen sant bu baax a baax a baax xew moom. li xam nga mbëri dañuy woote. Ah. ñun woote wuñ sax ñoom dañoo teew. dëgg la te ñoom ñoo doon woote pour jël seen carte. dëgg la. ñun ñu ngi fàtte ñoo doon woote jëy naa la sama carte maa ngi nii di ñëw maa ngi am ñoo xam ne dañoo ñëw ci takk bi ñëw guddi. dëgg la donc man aussi may remercier sama belle famille bu baax. Ah. ndax vraiment miin naa leen balaa maa sëy si. mais yàkkuñu ko daal. <laughs> vraiment bi ma ñëwee ba tey ñoo fi toog ci kër gi jugee wuñ fi. bu ñu xëyee xam nga ñu ngi may toppatoo. Mm-hmm. di def lépp la ñu war a def. Mm-hmm. nday leena maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier sama lakkal la nag. Mm-hmm. di nuyu tamit Oumy Ngom mooy rakkam. laay comme ki ni mu ko waxee ak ñeneen yi si des yëpp Cheikh Tidiane mi nga xam ne nekk fi. seen papa aussi. di nuyu Petit Diadji mi nga xam ne mi fi taxaw vraiment bi ah. xew bi amee ba tey. mu ngi fi sonn torop ci bril di sonn ci ñun aussi macha allah. macha allah Petit Diadji mi nga xam ne mooy borom caaro yi donc euh, yàlla na yàlla def meeru Caaroy di remercier daal di remercier ñi ci jàpp yëpp ay waay bu ma fàttee bu kenn mer jàpp leen ni yéen a sama xol yéen a ngi suñu xol vraiment merci mille merci Fifita yow moom mhm. du ma tàyyi ci di la gërëm vraiment mhm. yow lépp def nga ko ak sama man fa ma gërëmaat kenn koo xamante ne moom sama sama sama sœur la xam nga ñu ba pare nekk sama sama njëkke muy Biti Fall dama ko remercier bu baax a baax di remercier waa famille Falleen yëpp xam nga ku lim juum vraiment kontaan seen teewaay kontaan si vraiment nu ñu taxawoo seen seen seen raq mhm. vraiment kontaan naa si yéen bu baax a baax mais kenn laa fàtte di nuyu nabu naanaa borom Italie nabu naanaa borom Italie maa ngi lay nuyu bu baax grande sœur mhm. ak nabu Kaolack mhm. def nga lépp def <laughs> en tant que marié. Ah. lu muy joxe. waaw ah, sant rek. sant yàlla non bi bàyyi ma ak sant nag xoolal fii nag moom affaire diine. waaw <laughs> xam nga xam nga am na loo xam te ne. xam nga am na loo xam ne yëfu non parce que jóge nga ci benn étape. waaw ñëw ci beneen étape première expérience. waaw waaw premier nelaw yeewu. ça donne quoi. waaw satisfaction rek kontaan rek. kontaan kontaan rek waaw doo sax xam da ngay kontaan rek. doo comprendre kontaan rek quoi. wax ma moom lu ma wax ma ko. non doo comprendre kontaan rek. am na laa gënul comprendre laa du am na yoo xam ne nga naan kontaan rek. am nga macha allah. <laughs> ah ma ko validé bi mën nañ mën mën nañ tëjee loolu ah. validé bi nga xamante ni ça fait plaisir jox ngeen ñun ñëpp son de mariage. parce que incha allah bu ñu takk moom lay duggee. jeex na eh, non dañ la defal bu bees. bu ah, bees li yàlla bu mu jeex fi ma nekk nii dafa romb neex ma téye nii ay loxom dañu wóor xol bi moo ngi veex man xamuma woon yaa ma wan fi ma yóbbu maa xam yaa gën pare yaa leen mën lu la neex yaa ko fi am yaa mën na yeeli nelaw ci man wi ndeelu ma téemiir naa joxuloo ma libu teeliir ma xam ni yaay ki baax ci man wóolu naa la te fiir na yaa fi ne man maa la validé sama xol bi yaa ci ne man maa la validé sama xol bi yaa ci ne maa la validé artiste laa yor Bril mel ko benn mbokk artiste grawul bëgg naa. waaw dañ lay maye Kira ñu maye ko mu sëy wala. est-ce que am na ko mu yii de. non am na ku lay maye. waaw Bril après ñu waxtaan. incha allah après ñu xool loolu. donc ça fait plaisir man tamit amoon na koo xam ne promettre woon naa ko lii. parce que hmm. tey dama dem agence am. Hmm. Kolda la dëkk mais fii lay liggéeyee dafa am agence euh, de voyage. ndeysaan madame Touré. ndeysaan. barki Serigne Saliou Serigne Saliou rek laa yaakaar du ma xont dama toog mu ne ma dama gis say statut. ma xool tamit TikTok bi gis ni nga jàppalee sama rakk Dieyna. Uh-huh. xamoo ko xamu la. Uh-huh. mais nee na dafa yàgg xuloo yàgg xeex na yow. parce que Cheikhul Khadim bi ma yaakaar. moom tudd madame Touré. Uh-huh. Euh, donc xool naa ko su ma toogee ak yow. dinaa ko jottali message bi nee na kontaan na ci mariage bi. macha allah et moo ngi bég et doomu Kolda la xam naa du ñàkk incha allah. Uh-huh. di ngeen gisante loolu falee ko ma jottali ko. Uh-huh. donc madame Touré bu baax a baax. Dieyna Baldé tamit jot na message bi moom it bég na bu baax a baax aussi également a été un grand plaisir. tuuti taal xoolal balaa ngaa tàggatoo may ma. gis nga li ñu sol nii Jim création moo ko ñaw. donc Jim. kaw ba ci suuf kaw ba ci suuf. man ak moom yëpp donc waay. Jim création Wakam la nekk. près de war a mention spéciale à toi bari na tailleur yi ñu ñawal yëre yoo xam ne sax mënaguñ ko sol mm. comme Jules Fashion mi nga xam ne Mbour la nekk ak euh, Tivaouane Weuza création mm. ak euh, bari bari ak euh, aywa bari na mm-hmm. sama xel bi daal jàppul ñëpp mais mm-hmm. ñi ma fàtte ñoo fàtte di leen publier. dinaa leen publier sama page bu kenn mer na nañu xam ne temps bi moo gàttoon. donc tuuti fashion aussi mi nga xamante ne mooy borom perruque yu rafet yi aussi. Mhm. maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit ci ah. bride bi moo ma defaral sama bopp bi. Mhm. bàyyi Moodu moom yow aw ma fay. Mhm. perruque bi sax moom moo ma ko jox macha allah borom HLM. soo paree rek ma daanu ci makaan quoi. waaw ah, makaan gis nga man saa yu ma naay see rek makaan la. macha allah waaw sama bopp bu naay sama woto bu naay see moom la jaajëf makaan. kontaan <laughs> leen kenn. non di ñoom ñoom mami ko mami Cobra mi nga xam ne moo jiitu ci xew bi ñëpp sama grande sœur boobu man ngi koy bu baax. dëgg la mami asulaw bi mi nga xamante ne boobu ba léegi mi ngi woon ci kër gi aussi di doxal. Babacar Bongo. Mhm. Assane Cheikh. Mhm. xam nga ñoom Fatou Ndiaye ki ne ndaxte Dieyla joor mhm. xam nga mami Victory. om ji uli xam nga mayakama man daal bari nañ mënuñu lim ñëpp bari nañ ay allah waaw ñoom soxlawuñ sax loolu a ah. baax rek di remercier mm-hmm. seen wareef lañ def donc koo leen euh, la naan fàttalil ku la make up nee na a wax waaw nii nii a merci ki ma make up nii a defaral a sama bopp bi nii Adja make up la Adja merci beaucoup mm-hmm. vraiment maquillage bi na mm-hmm. bopp bi na ah, merci jikko jee gën a rafet et loolu c'est très waaw ah jàpp nañ eh, ne c'est bon c'est bon ah, jàpp nañ ne c'est bon. ah d'accord d'accord merci xam nañ xam nañ ne kenn duñu mere parce que gars dañoo baax nit ñi dañ ñoo bëgg. dëgg la macha allah dañ ñoo bëgg ñu bëgg leen. dëgg la mm. c'est très important mbokk yi ça a été un grand plaisir ñu def entretien spécial ci couple Fall euh, Bril ak Dieyna Baldé duñ ñu wax nag lu sori bañ leen di ñaanal yàlla rek suñu borom lafal leen cat. lépp luñ ci bëgg ñu ñu ñu am ko ci seen sëy bi. macha allah Bril jot naa ko téléphone ma ne ko Bril li nga def ci quatre ans yi. yokk cere dolli ñeex rek waaye xam naa ni suñu borom dina la jàppale bu baax a baax ndax bu doon du dëgg du am sax un an bay am trois deux trois ba quatre dëgg la Dieyna moom tamit sama rakk la moom aw ma lu may wax ak moom ndax xam naa fi yaayam toog. Uh-huh. fa lay toog incha allah. te am bril yaakaar naa doo bouger. Uh-uh. doo bouger uh-uh. yoo tax. donc c' est très important waxtaan nañ ci lu neex a neex. Mm. donc yéen sénégalais yéen a ko bëggoon ñoom may nañu opportunité boobu. dinañ ñëw nag après ci seen carrière. Mm. Ah, en tant que marié ba pare nekk ay professionnels ci liggéey bi. donc ñaari tâches yu bokkul la. dans l' avenir dinañ ci ñëwaat incha allah. ça a été un grand plaisir ñu jox leen rendez vous allah.